la rakaxa bu ci nekk fatiha benn yoon isaa jaa benn yoon qul huwa allahu ahad fanweeri yoon ak juróom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi